ñoo koy mun ko ñëw fekk ma kenn ci kër gi gone yi ma yéexoon sama njaboot gii xeex gaañante man lan laay wax dina ko jar sama ci kër yaa bi moom leer ma ne moo ko fay. ah asalaamaaleykum. Ndiaye Ka. ah. neexiree. neexiree la man. foo demoon. dafa génnoon de. yow bu ma la bàyyee ci kër gi man dem voyagé man pour yow ngay génn yow ba sama gone yi nar a rayante ci buntu kër gi yow léegi loo fi def ni jaay waaw toogal toogal nga dal yow itam toogal dafa for nga dem am sa téléphone yow et puis am sa téléphone sama téléphone bi dafa fay garage bii laa demoon soriwuma yow dem garage dëkk génn ci kër gi sa téléphone fay ni yaay loolu te ngaa toog rek jaa jànq sàmba ñu waxtaan man su ma ñëwee ngay énervé ak ak a jaaxle ni jaay dama dama énervé ni jaay bu la énervé bu ma jaaxal yow itam noppil damaa génnoon fii laa ci garage laa demoon soriwuma ah moo tax ngay énervé ni jaay bu loolu jàllee ana ñaan ko ñànku mënta na ci kër gi. ñànku maa ci kër gi. ñànku ci kër gi la ne matagul ñetti fan dangaa dem sa tànk génnagul buntu kër gi ñànku doon jigéen man xaw ma jigéenu ñànku yaa ko fi. téewul ko sama ñànku man jigéen. ñànku di regeju bàyyi ma xel rek di regeju di sànni loxo di mel ni bàcc si la. Eh, ah mm, dama ne non exemple laa lay jox ma ne ko génnal ca xaj kër gi duñ ko bokk da liggéey wuti na liggéey ñànk sama mos mi jaay ma génn nga dem ba ko mu dem daa wuti liggéey yow xam nga ne ñànk dem nga ko wuti liggéey daf xam na rek ak sas ak ni di nga ree ni jaay sama ñànk man moo ne fii def nii def ñànku dox bu xam nii ak nii bàyyi xel ak rega jog yi wax ah ni jaay damay génn man la ko jigéen jigéen jigéen taxaj la ni jaay nga def nak dëkk jigéen ci kër

xool daa ñu waxoon ñëpp fulmaay du liggéey ñoo lay gàlluwaay xoo jafe mu gam te daa ñu bon di fi am su dee amee di def bu dee amee di def. Eh, eh eh eh naam naam. Eh. Nijaay ba jàmbur man lay waxal. eh gis nga Nijaay nag man lay waxal yaa ngi ko bëgg a doon. Eh, saw la wuy ma saw la du ma sama roman. Ah. Nijaay ñànk bi sama xol la boo ko laajee dag may laal. bu dee sa xol sama wet. Ah, mooy sa xol mooy sa. weenu góor maanaam man ñaar ma naqar ci mooy ñu wax di jàll ah weenu góor fu mu jëm kafu ma ci wax la rek yow tamit ma Nijaay nag ay weer laa kafut waaw léegi baal weer léegi du waxati weer kafu ma ci weer xeween nag ay ween lay tàmbali nijaay baax loo xeween yow tamit waaye toog wax xeween moo ko gën a bëgg ah, xam eh, nga day ween rek ko waaw waaw wuy ma xoo xoo xoo xoo yow ñoom la ñu démb ba tey ah. gisuma ni ci kër gi eh, moom wax wax wax wax sa jëkkër te yëgal moom moo wax ne kër gi duñ ko bokk tax amoo liggéey ma ma may wuti liggéey dama wuti liggéey ni ngay wax ma sa loxo yi nga def ni ñànk pour la yow tamit góor da nga def yi fu góor yàlla góor day dëgër waaw moo wax dafa ba liggéey moo ma maa ko maa na ko damay wuti liggéey waaw léegi kii mooy sama pantalon léegi da da da nga ma liggéey waaw sama pantalon ngi am naa liggéey may ma ko liggéey yaa nga li ma liggéey fóot ah, nga ne kan kan fete fóot wala waaw fóot fete si leen di weer ni jaay weer yow kan yow da nga koo yóbbu ci kuy fóot li nga xam ne moom ay yére mi dama ko boole fóot ah yow fóot kat waaw kii kii kii rek fóot yi koy fay eh, xaw xaw kii ku am jom la ku respecté boppam la. tëjal si booy ma tëjal ma sa ñaari kii. sa ñaari xarab yi ay eh, kon sa sañse gu rëy sa ci kër ah nga jéggal ma da ngay fóot. saa yi lii da nga nekk fóot. Eh, dara li fóot jom la. waaw yow yow nga fóot moo wën moo moo gën. te dama ne yaa ngi déglu yow. yaa may déglu sa yére sax ko sa bopp bay dem liggéeyi fóot. waaw ñaan ko góor day def yëfu góor sànq wax naa la góor day góore. ah fóot liggéey liggéey ma may sa impagne ñu te kër gi man da nga gis ma may fóot ma jaayee nii sa yére sama yére bu tilimee fóotkat bi moo ko jël si fóot ko. jël sa téléphone bi sonné xaw ma fan yi ñoo lay woo. taluma ko taluma kii da nga kaa war di jël ba xam amul ay fan. jërëjëf ok ba léegi man li ma lijjanti moo ma ñor fóot doo liggéey ma yeewoo ci kër gi ñu naan daa yor ba ko ci kër ga muy fóoti sa melokaan bi lu ma jaaxal la. waaw léegi naa bàyyi kon liggéey liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey nijaay dina bàyyi sa baaraam bi nga jël waxaguma nga am lu wér ci tam nijaay ñanku mi nga xam ne sama moom la ñanku mi nga xam ne nangam ñanku sa mos day fóot te jigéen la léegi ka ka waay da kuy fóot di fete di fa bay rek a weer jigéen ñëw mais sa yow yaa mën a liggéey fóot fóot naa liggéey soo bëggul ma liggéey fóot ma bàyyi loo ko waxee dama liggéey yow rek kenn nijaay lu ci njàng fi yaa njàng loo ko waxee dama liggéey yow Ibrahima Gueye Ibrahima Gueye doo ngay fóotal ci waaw xaw ma encore daal daa wuti liggéey yow yow yow Malem je t'aime beaucoup je je plus fait kontaan na avec toi merci beaucoup. très bien kii moom kii moom da nga wolof may nag ma dem suyee ko ndax kii. Eh. li ma defal kenn du ma ko mënu ko def ci leeral ci leeral bi. mais neexoon doo ko wax. wax nga ko ba pare. Eh, yow yow yaa gën ñëpp dëgg nga. kii mooy léegi ma ko mu sëy. noppi looy wax. demal demal mais may nañ la ko. wax nga wax yow. ñaan ko eh, dugal fii. may nañ la ko demal waaw waaw waaye nag. ñàkk bu sama ma mun naa dem xoo xoo xoo. du ma la fekk tamit la jot dañ ko lijjanti maa moom sëriñ bi mu lay naale woon banaa ko. foo eh, def loolu nag dinaa ko ba naaw dina ko ma ñaan ko. Oh, oh. demal borom borom jekk ginnaaw soo yu fay bul mel waaye. Eh, waaye kii la sëñ kër moo xam naaw di wuti liggéey wuti naa liggéey. ñàkk ci biir yow. ñàkk kii sa nijaay la. kii sa sama nijaay dafa yàlla moom moom. oui ma baa ko baal dox ma def ñàkk de doomu jàmbur li nga ndox seen bàyyi ko. day fóot. yaa ngi koy ma dem liggéey loolu yow la da ngay jël. moom kay bu yóbbu ma génn ma nga ne ko ma dem liggéey kay nijaay loo am bu nangu rek. bu dee sang xar sax man na liggéey moom na liggéey rek. bañ naa ba sonn na liggéey rek yàlla baax na lu mu liggéey baax na. fóotal raag ak lu ne ci def man daal man daal jàpp koy bàcc ci la dëgg la moom dinaa ko fa yóbbuwaat.